Ah, mbokk yi Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñoo woote bésu le 27 février arène nationale Fallou boole ay xale yu ës mën a bëre teg ci mën a xeex lool. looloo tax ñu dem jële ji Jokal daal di koy boole ak Ada Fass l'expérience de Jokal fera face à la jeunesse de Ada Fass bulldozer caatu yaraax combat espoir waaye làmba ji nga xamante ne ni jaay na boppam bu yàgg diggante Laurent Ndiago ak Bou Siteu combat yi. ci bés boobu Tony Junior dina fa jàkkaarloo ak Jackson numéro 2 Baba Jaxal dina fa jàkkaarloo ak Kelemaso Soq numéro 2 ak Bekaay ci bés boobu la ñuy bëre Sekk Ndaanaan armée 2 ñu fa jàkkaarloo Papa Siteu ak Franc Mbeur dinañu fa jàkkaarloo Karbala armée Jéey foofu la ñuy bëree waaye Caatu Saf dina fa jàkkaarloo ak Njaak magicien mbokk yi lamb ji nag du daw ci benn télé en direct lay doon pay per view ngeen mun ko am ci seen affiche point com Lutte TV yéen macha allah seen liggéey am na solo trop mais seetaan naa keroog euh, Kona sama xarit la man dama koy suivre parce que nag vraiment man ay waxam neex na ma mais keroog juum na keroog juum na dégg naa mu attaqué leen na yëpp dina ànd ak kan. nee na ñun ay nit état lañ waaye mboot nawet yëpp ku leen bëgg a toj tàccu est-ce que sa tool waxaatal li wax. neen ay seytaane lañ. man ak Buzz ak Lutte TV nee na ba mu commencé dal état ba léegi duñ ko bàyyi jël mee nañ ko jàppee mbott na non non kon man vraiment pour man li mu doon wax da ko teg ci xam-xam mais ndekk teg ko ci xam-xam moom nag aussi ni seen nit bari wax xam li ngay wax mu ko gën bakk Mouhamed bari wax xam li nga wax gën man di yow xam ma Buzz Buzz sax xam naa ko mais yow ak Mouhamed ñu gën a kon ma wax ko fi ñi gën a waaw opposant ngeen daal yow mën naa ki nga faral maax ko Ousmane Sonko nga yow Sonko nga sax soo ñu xuloo ci ma lay tooñ <laughs> nga naan non bilaay du ma fen man nag Sonko Macky Sall ñëpp samay xel parce que tey la Lamine waruma kontu Sonko bu mu xam ko parce que mun na maa bëgg te duma ko xam wala mu ànd ak ku ma duma ko xam Macky Macky Sall xaw ma ko mu mos ma koo gis mais am na tey ministère am yoo xam ne dañ ko bëgg bëgg ma su ma ko saaga mbaa mbaa maxas ko du du dañ may xeeb Sonko su ma taxawee te xas ko dañ may xeeb Karim Wade noonu Khalifa Sall noonu mi Dias noonu ñëpp laa bëgg mais yow moom daa bi ñu demee ci événement yi ni nga ni non ni nga ci mere ëpp na moo tax ku ne état ngeen àndal dana fala la xamoon te yow yaay lu TV yaay bopp bi. yaay gën bi boos aussi dana ko ci ay politique boos na ko ci politique bo boos di intellectuel jàng c'est que nag man yooyu daa boog bi si man kon naa vraiment bu mu contre état rek nañ ñëpp ànd ak moom tey mën na contre état parce que am na ci droit mais nag bu mu la ne yow da nga ànd état parce que tey bu ko jël parce que moom bari wax xam ni ngay wax ko gën mën nga ko wax mu tëj wax tëj tëj parce que Serigne Bamba joxoo ma ñaar dërëm joxoo ma ñaar dërëm man gëj naa gën sa ci émission sama interview yu bëri lutte bi laa ko defee da ngeen a maandu woon na Bamba àndoog état xamoo sax état tey boo sañoon réew mi saase xam naa sa jikko <laughs> boo sañoon président bel am parce <laughs> que Serigne Bamba sonko nga dégg nga duma ko nebu gars yi ngeen baal ma mais nag baax na Lamine réew mi démocratie la am nga droit rek ma sonko bëgg Pastef ren seen maire bi bi muy xëccoo looro man de dégg nga ma woo ne ma defal ko vidéo ko ta ta tafaroo ta ne ko waaw Pastef ne ko Pastef mais damaa ko def na na yuy waa looro na waa nga dégg jërëjëf finaal bi yàlla na Sénégal jël ndam li Karambu demul mais mel na dem na tey lamin sama oto bii may dawal football la ma ko jox kon futbal am na solo benn mbër mënta may mbër oto mais si yooyu ñu def teraanga kon di ñaan ci yàlla mosuma am oto final bii fekk na ma am oto yàlla na ma yàlla may may nu Sénégal gépp nu jël ndam li Lamine kup dañ koo soxla Karaambo demut mais chaque jour mu ngi ñaanal Lions yi moo Sadio Mané ay xarit lañu Koulibaly keroog bi ma ko gisee di ko tooñ ne ko mu ne ma no Kara sama frère di ñaan ci yàlla yàlla na yàlla may Sénégal coupe Bamba Dieng neex na ma Ismaïla Sarr neex na ma. classement yow sa gars yi xam a gars yi <laughs> nu mu tudd sax tamit sol lu sol bi xam a c'est maanaam bi booy bi nag si wut. Omar Chelsea mu nekk ci gaa ci naa football de latéral bi non xam nga sax défenseur bi moom. Kalidou Koulibaly dafay nekk. Saliou Ciss. ak euh, Freddy Mendy. milieu terrain bi. Euh, milieu terrain Gana Gueye ah. Abdou Diallo Abdou Diallo waaye bu jaas waay la défense bi défense bi la laa waxoon nga ma jaxase ah. défense bi kay du kuri bëri la Saliou Ciss Abdou Diallo ah. milieu terrain bi Gana Gueye Cheikh Kouyaté Ismaïla Sarr Bamba Dieng attaqué yi moom benn la Sadio Mané mooy dugal. kon classement boobu nga bëgg. boobu laa bëgg. Omar Diallo ci kaay. ma jox ci kaay wax. man est-ce que retraité. waaw xam góob bi sax déglu ma góob bi bilaay Ferdinand Mendy. Edouard Mendy moom mën na moom nañ ko fi noo non Edouard Mendy non mën na gardien senegal équipe bi ñu am dafa neex équipe bu réew ñu am Aliou Cissé nag sa waay même bu gagné nañ ko saa si nag na fi nag gagné coupe mais nag na dem ngir yàlla ndax Kara ñëwaat moom moom Kara moom neex na ma su fekk mu ngi fi Kara du ñëw bu yàlla jël coupe am médaille mais ngir yàlla bu jëlee coupe nañ jël beneen. entraîneur mais di wax dëggu gérer ren yal na yàlla may Sénégal coupe. dugal parce que concurrence am la comme maag Lirou Diane rek comme maag Lirou Diane na ma doon Lirou Diane ba mu tëdd noonu dafa war a dóor gaan bii parce que concurrence la parce que sëñ Ba Mbakke da war a wu wan maalam mën pour bu demee ci seen club yi mu respecté ko maa ngi lay sant di gërëm sëñ Modou jërëjëf. maa ngi gërëm ñëpp sant mbokk yi Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñoo woote bésu le 27 février arène nationale Fallou boole ay xale yu ës mën a bëre teg ci mën a xeex lool. looloo tax ñu dem jële ji Jokal daal di koy boole ak Ada Fass l' expérience de Jokal fera face à la jeunesse de Ada Fass bulldozer caatu yaraax combat espoir waaye làmba ji nga xamante ne ni jaay na boppam bu yàgg diggante Laurent Ndiago ak Bou Siteu combat sénégalais yi. ci bés boobu Tony Junior dina fa jàkkaarloo ak Jackson numéro 2 Baba Jaxal dina fa jàkkaarloo ak Kelemaso Soq numéro 2 ak Bekaay ci bés boobu la ñuy bëre Sekk Ndaanaan armée 2 dinañu fa jàkkaarloo Papa Siteu ak Franc Mbeur dinañu fa jàkkaarloo Karbala armée Dieye foofu la ñuy bëree waaye Caatu Saf dina fa jàkkaarloo ak Njaak magicien mbokk yi lamb ji nag du daw ci benn télé en direct lay doon pay per view ngeen mun ko am ci seen affiche point com